abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba xam ah, <laughs> suuf papa yeeg yaay yi nag loolu itam imam bi dina ci indi ak param pàcce waaye itam ci beneenu fànn itam dalal na ñëw ah un jeune boo xamante ne ni élève la il a été touché par ce phénomène mbokk yi euh, thème bi ñu leen indil mooy thème état civil ak euh, li nga xamante ne ni ñi ngi ko fiy jànkonteel surtout les élèves ah, euh, yaakaar na vous le savez tous état civil u Diourbel ah, on de numé on parle de euh, numérique ah ñu toll ci troisième édition yaakaar na c'est important ci troisième édition bi bu ñu ci jógee rek ñu fexe nu ñu euh, euh, euh, informatiser li nga xamante ne nii moom mooy suñu état bi parce que mënuñu comprendre chaque année chaque année et ça se répète chaque année il y a des candidats yoo xamante ne nii mënuñu def ba ah tas yaakaaru une jeunesse boo xamante ne nii ñoom dañu yaakaaroon ne dinañu def ba voilà tu arrives et on te dit que nekkuloo ci donc yow yaay waral sa bopp sax fusion yow yaay yow yaay dugg di wër ah. ñi ngay def di gis ne suur yi ci naan di seen ñu la koy wërale dina ko yéen ay wërale sa sa sa sa sa sa extrait de naissance en tout cas c'est c'est c'est loolu dañu dañu dañu dañu koy souligner yaakaar naa bu ñu ko souligner suñu ay autorités dinañu ci def ak taxaw seetlu indi ci indi ci tam li nga xamante ne nii moom moo di solution fallait en parler c'est pourquoi on a parlé de ce sujet là donc sujet bi bi ñu ci wax dalal nañ ci imam je l'ai dit tantôt dalal nañ ci également ndaw loo xam ne loolu itam euh, arrivé na ko dañu leen bàyyi dañ ko def nag Euh, euh, euh, journal que ça soit journal 20 heures que ça soit journal émission émission lañ ko def ah. émission la boo xamante ne nii mbokk yi dinañu ci faram-fàccee lépp loo xam ne dafa ñeel li nga xamante ne nii moom moo di sujet état civil bi dañu ko def nag ci trois minutes kese ah trois minutes lañu ko def parce que loolu lañu ñu ñu santoon ah dañuy dañuy bàyyi moom itam mu wax avant ñuy ku jigéen ki mu wax parce que les femmes sont à l'honneur ah. seen tur ak seen sant ci li nga euh, En trois minutes. Dans le coréen, le Baol se présente les problèmes d'état civil, ses conséquences et solutions. Félicitations, les Baolistes. Mais les Baolistes dama laajoon dama laajoon ci secteur yu bëri cinq secteurs laa laajoon ah ñoom lañ ma jox benn dégg ma yéen benn secteur lay leen wax muy ban secteur état civil état civil la ah d' accord wax ne leen ngeen def comme journal bi du muy jàllee ñooy waxtu politique ci sport environnement santé culture n'est-ce mais c'est bien parce que da ngeen a jàllale message bu important comprendre ngeen mais chaque jour lu may waxee nee naa leen tant que yéen a ngi jël logo bi di ko occupé vidéo bi yëpp logo bi marque rek la c'est la marque qui vous protège qui protège qui définit c'est l'empreinte de l'entreprise donc soit ngeen koy def à droite wala ngeen def ko en haut à droite n'est-ce pas fi ngeen koy def bu ndaw moom mooy présenter entreprise mais nice je vous donne cinq sur dix ok nice. je vais passer la deuxième vidéo ah les boobu